baada ma amatana wa ilayhi nushur réew mi fm 97.5 nañu ak suñuy mbokk ñu ñuy topp ci waxtaanu fajar wi si waxtu wi ngeen di ci ànd seen mbokk Ibrahima Drame ki ñi àndal ci wàllum xarala gi mooy suñu mbokk di jawwu jàllo mbokk yi ñu bokk sant yàlla buur bi tabaraka wa taala julli si yonent sallallahu alayhi wa sallam buur bi nga xamante ne moo ñu baaxee xéewal ya nekk fa moom te du jeex du xaaj mu doon xéewal yoo xamante ne doomu aadama yi la ko jagleel waaye daf ñu ne xéewal yooyu nekk fa man yàlla bu ngeen fi nekk di ko lim di ko géem a xayma du ngeen ko matal di ko dajal moo tax mu nañu ci téere bu mag bi ci suñu alquraanul karim mu nañu wa in tauddu nicmatallahi laa tuxsuha bu ngeen fi nekk di xayma xéewalu yàlla yam leen defal du ngeen ko matal du ngeen ko dajal ba na ñu jukki ci xéwal yooyu yàlla xéewalal doomu aadama yi ñaar kepp bu ci jiitu mooy xéewal bum ñu xéewalal mu doon xéwalu ibaada di xéwalu jaamu yàlla ya ñu doon joxe waxtu su néew ci ginnaaw waaye ñaareelu xéewal bi mu di xéewalu nelaw bam ñu may ñu def ko ci jàmm xéewalu jaamu yàlla jooju di xéewalu ibaada waxtu bu njëkk bu ñu rencontre ak suñu boroom subhaanahu wa ta'ala bi wax ci tiyaaba joo xamante ni kenn mënu koo natt ngir na mu amee dayo fa yàlla waaye tiyaaba joo xamante ni nu mu amee solo fa yàlla xanaa du mooy xéewal ba ñu yàlla may ñu fekkee yowmul jumaa di bisu àjjuma muy bés bi nga xamante ne mooy seydul ayam mu bari lool njëriñ yu mu làmboo mu bari lool ay secret ya ca nekk waaye ñu doyloo xadiisa yonent bi sallallahu alayhi wa fi mu waxee jullit yi ne leen waxtu julli ba gën am importance fa yàlla mooy waxtu yu julli fajar bésu àjjuma bu jullit bi def ci mbooloo bi waaw yonent bi sallallahu alayhi wa ñu ne moo ñu ne waxtu julli ba génnal yàlla ci waxtu julli ba jullit bi di julli ci bisi yi mooy julli fajar ba jullit bi def ci jàkka ja bisu àjjuma kon bés ni ki tey képp koo xamante ni julli nga fajar julli nga suba ci waxtoom rawatina ba nga def ci jàkka ja xamal ne loolu du sa ngóora du sa njàmbaar xanaa yàlla moo la baaxee nga am xéewal bi mel kon bu la ko yàlla xéewalalee ben ko joxe ci jàkka ja na nga jàpp ne la buur yàlla tabaraka wa wax ci alquran dong lañuy nettali mooy daalika fadlullahi loolu mooy ngëneelu yàlla yuti man yashaau da koy joxe ki ko soob ndax wallahu dul fadlil adim yàlla moo yore ngëneelu yu mag yi ci moom la nekk ngëneelu yu kawe ci moom la nekk anaadu moo koy yënkewal di ko baaxe di ko dottil ci képp ku ko soob yal nañu yàlla ñu doon jëmm yoo xamante ne daf ñooy wàccil xiwalam ak ngëneelam saasu ne kon yow mi yàlla baaxe nga joxe waxtuy fajar waxtuy suba ci jàkk ji xamal ne yàlla wur wërsëgal na la xiwal joo xamante ne ak ngëneel goo xamante ne bu la bàyyeeg sa bopp rek xawma foo koy ame doo ko sax xam ba nga di ko fàggu waaw ñàkk xam dara dina tax nit ki du ko faggu waaye xam ko tamit bu la yàlla jàppandala doo ko mun a fàggu kon yàlla bu dajalee ci sa jëmm ji ñaar yooyu nga xam ko mu jàppandalal la nga mën kaa fàggu kon war ngaa war a mën a sant yàlla buur bi tabaaraka wa nga xam ni lii ma yàlla wërsëgal nii bi ma joxe waxtu yu suba ci jàkka ja ah lii de du sama njàmbaar du sama ngóora waaw daalika fadlullahi yutihi man yasha noonu la ngëneelu yàlla ba nekk fa moom moo koy joxe ku ko soob waaw ndegem yàlla boole na ma ci ñuy faggu ngëneel bu toll ni kon danga nga war a sant yàlla yal na yàlla xiir ci boppam yal na ñu yàlla jàppandalal ñuy joxe waxtuy julli yëpp ci mbooloo mi waaye rawatina waxtuy julli fajar yowmul jumaa ngëneel ba ca nekk ndegem yonent bi moo ñu ne waxtu ya gënal fa yàlla waxtu ya yàlla sopp fa moom jullit bi di ko julli mooy waxtu yu julli fajar yowmul jumaa ba jullit bi joxe ci jàkk ji yàlla ñu yàlla nangul kon ci kanam tuuti incha allah dinañu fekkee waxtu yu julli juma waaye ci kanam tuuti dinañu fekkee waxtu yu julli takkusaan noonu la ñuy ànd ak bés bi ba ñu dugg ci timis noonu la ñuy amee waxtu bu mujj boo xamante ne mooy waxtu yu julli gee lépp luñ ci julli yal na ko yàlla nangu lépp luñ si ñaan yal na ko yàlla nangu ngëneel ya yowmul jumaa lamboo yal nañu ko yàlla wërsëgal amin ya rabbal alamin mbokk yi loolu benn ci xéewal yi la yal nañu yàlla may dégg ak topp yal na jàmmi yàlla nekk ci yenn ak seen njaboot ñaareelu xéewal bi mooy xanaa du yàlla suñu borom tabaraka wa taala moo ñu wërsëgal ñu teewee nelaw ba ñu nelawoon biig ci guddi yàlla delloo ñu suñu ruux su ko defee moom la buur bi yàlla tabaraka wa di wax ak doomu aadama bi di la xamal ne ah, loolu nga suubu woon ci loolu nga nekkee woon du lu mën a jaay du lu ma la abal du lu ma la euh, du loo jënd ci man ak noo bari li bari li xanaa xéewal la joo xamante ne man yàlla maa la ko tàggatal te maa la ko jox moo tax mu ne allahu yàlla yatawaffal anfus mooy faat bépp bakken bakken yoo xamante ne xiina mawtiha jamono bu ñuy suubu ci dee bu ndaw bi nga xamante ne mooy nelaw yàlla mooy roof mooy pikiir mooy wàccee virusu nelaw ci bépp bakken wi nga xamante ne jamono bu muy suubu di dugg ci dee bu ndaw nga xamante ne mooy nelaw yàlla nee na walliti lam tamut fii manaamiha waaye bakken joo xamante ne du dee ci jamono bu muy nelaw loolu ci coobare yàlla la maanaam bakken joo xamante ne du nelaw nelaw bu xóot waaye du nelaw nelaw joo xamante ne da si jaaree dee déedéet nelaw bu yemamaay la ko yàlla di offrir nelaw bu yemamaay la ko yàlla di pikiir virusu nelaw ba ñuy tuddee singim walla jayaxu moom la ko yàlla di roof su ko defee moom noonu lay nelawee waaw mu ne ñu ñaareelu bakken bi mooy fa yumsiku lleti qada alayha al mawt ci biir nelaw yooyu bakken yi soobu yàlla ne may récupérer may faat may jël bakkan joo xamante ne dogal naa ci moom ne guddi boobu du ko yeew man may jël bakkan boobu mu desandi di nelaw ba faw waaw yàlla ne wa yurusilul uxra man yàlla may delloo ñetteelu bakkan bi ci jëmm bu mu bàyyee ko woon suubu ci nelaw yàlla nee na may delloo ruux boobu ci jëmm ba mu génnee woon ilaa ajalin musamma ma bàyyi ko mu continuer di dund ba app bi ma defalante moom bu jotee ma daal di ko jëlee ci kaw suuf si kon yàlla buur bi tabaraka wa taala képp ku mu delloo sa bakkan ba nga yewu ci jàmm loolu la la la bi jàngal ne noonu nga war a def mooy nga ñaan ñaan bi nga ne alhamdulillahi ledi mboole xeetu cant yu kawee ñeel nañu yàlla ndax mooy buur bi nga xamante ne alladi ahyaana moo ma dundal baada ma amaatana gannaaw bu mu ci man nelaw bu ndaw te mooy dee bu ndaw te mooy nelaw te tamit wa ilayhi nushur bu ñu jóge ko ci kaw suuf si tuñu ñu dellu ci kenn ku dul fa yàlla buur bi ne ba léegi ci suuratul ruum wa min ayatihi bokk na ci kawtif ya nekk fa man yàlla manaamukum bi leyl nelaw ba ngeen di nelaw ci jamono bu ñu naan guddi wan nahaara wabtigaaukum min fadlihi ak bokk na ci samay kawteef ya nekk ca man yàlla mooy bëccëg bi nga xamante ne da di babbeeku kenn ku nekk di xëy di kër-këri di dem di ut wërsëg ba ma ko tasal ci kaw suuf si ngir mu mun a faggu la muy dundee yàlla nee na inna fi daalika la ma leen joxoñal ni mu ngi si ayatin kawteef joo xamante ne li xawmin ñeel xeet yoo xamante ne dañuy déglu alquran waaye dañuy dégg la leen alquran andi waaye dañuy nangoo dégg lépp la leen yonent bi baaxe sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi yal na yàlla nekk ci yenn ak seen njaboot ba léegi ñu ngi leen di fàttali ne bés ni tey mooy yowmul jumaa mooy bésu àjjuma joo xamante ne ci la ci yonent bi wax sallallahu alayhi wa sallam ngéene ca nekk kenn mënu koo xayma waaye kenn mënu ko xam tamit ndegem sallallahu alayhi wa sallam moo ñu baaxee yowmul jumaa ngeen di sa nekk kon ñu géem a góorgóorlu géem leen tënk la nga xamante ne moo nekk ci ngéneelu yowmul jumaa mu di ay ngéneel yi nga xamante ne foo ko na ko ndax loolu la borom bi tabaraka wa taala baaxee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu di ko wax ci alquran suratul jumaa mu ne ko yaa ayyuha alladina aamanu yéen ñi gëm yàlla ida nuudiya li solaati min yowmil jumaati bu ñu noddee julli ci yowmul jumaa yàlla ne fas aw ila dikrillah na ngeen daw na ngeen babbeeku kenn ku nekk na samp aw xilam dem ila dikrillah ci tudd yàlla bi nga xamante ne mooy julli yàlla ne wazarul bay a na ngeen tegandi jaay ak jënd ngeen dem wuyu la nga xamante ne mooy la leen yàlla woo te mooy ci julli bi yàlla nee na daalikum loolu ma leen tegtal noonu xayrun lakum mooy li gën ci yéen in kuntum taalamuun ndegem xam ngeen fa ma leen di wax waaye ndegem xam ngeen la ma leen di wax kon yàlla buur bi tabaraka wa ci saar bi day wone ne bu fekkente ne noddu nañu waaw bu ñu noddaatee yowmul jumaa ne nga dégg noddkat bi di wax hayya ala salaa hayya ala li la war yow jullit bi mooy nga bàyyi lépp la nga nekkee buur yàlla tabaraka wa taala ne ñu na ngeen tegandi jaay ak jënd ngeen dem wuyu noddo bi nga xamante ne ca lañ leen di woo su ko defee yàlla ne loolu mooy li gën ci yéen ndegem xam ngeen ko kon su ko defee ñu xool tey euh, di yowmul jumaa la suñu yonent bi baaxee sallallahu alayhi wa sallam ngéneel ba nekk ci bés bi kon duñu def dara lu ñu dem bokk xool calendrier bi nga xamante ne moom la ñuy fas yéene di wétalantik yéen tey di yowmul jumaa mu tombeek ñaar fukki fan ñaar fukki fan ci weeru al te moo tombe gàddaay yonent bi atum junne ñeen téeméer ñeen fukk ak juróom benneelu at mooy mille quatre cent quarante six ans waaw mille quatre cent quarante sixième année bi ca la ñu toll ni ci gàddaay yonent bi mu nekk njëlbeenu weer ci calendrier yi jullit ñi di leen fàttali ne rek des na suñu digganteeg weeri koor deux cent dix jours deux cent dix neuf jours moo des suñu digganteeg weeri koor ñuy ñaan yàlla weer bu mag bu shahru ramadanul karim buy ñëw yàlla nañu fi fekk yàlla buy dem mu bàyyi ñu fi waaye lépp lañ fa jaamu yàlla ñan na ko buur yàlla nangu kon ñaan bu ñëw ci calendrier bi tey mooy yow doomu aadama bi rawatina yow julit bi dala war saa su ne ngay ñaan sa borom di ko ne allahumma jaddid imaani fi qalbi allahumma buur yàlla maa ngi nii talal sama loxo di la ñaan jaddid imaan yàlla nga beesal ngëm yàlla fii qalbi ci sama biir xol ngëm yàlla boo xamante ne moo ma fi tax a nekk moo ma fi tax a bàyyi te moom mooy la may peesee sama doxalinu ci sama diine yàlla nga ma ko beesalal yàlla boo ko seetaan muy xommaat nga nga ko beesal saasu ne yàlla boo musa seetaan sama ngëm yàlla muy màggat wala muy xoomaat walla muy taq loo xamante ne yëfu seytaane la kon yow jullit bi la nga ñaan yàlla ni yàlla moo la ko mun a defal moom dong moo la ko mun a defal ba tax na ñun ñëpp ñu ñu bokk mokkal ñaan bi ñuy naan allahumma jaddit imaan fi qalbi yàlla nga beesal imaan ngëm yàlla bu raxul bokkaale yàlla bu taxul bokkaale yàlla boo xamante ne ngistal nekku ci rëy nekku ci xeeb nit ñi nekku ci mu doon ngoom yàlla bi nga xamante ne mooy laabal sama jikko waaw allahuma bur yàlla jaddit imaan yàlla nga beesal ngëm yàlla fii qalbi sa sama biir xol kon yàlla ñu yàlla boole nangu la nga xamante ne moom la ñaan bi di nangu amin ya rabbal alamin mbokk yi yàlla na jàmm yàlla nekk ci yéen ak seen njaboot fàttaliku ngeen ren rek euh, ñu ngi àndoon ak yéen ci suñu thème amalu saalih bi nga xamante ne moom la ñu tàmbale woon di waxtaan ak yéen su ko defee ñu bokk xool hadis ba nga xamante ne bi léegi moo ñuy woon amalu saalih bi nga xamante ne moom la jullit bi war a nekkee ci kaw suuf si su ko defee ndegem yàlla dogal na tabbi nañ si at bu bees bi nga xamante ne mooy atum julit ñi képp koo xamante ne yaa ngi denc la nga xamante ne soxlawuloo ko te mat naa génni azaka kon mais ñu nopp ñu géem waxtaan ak yow la nga xamante ne dafa bokk ci ponk islaam nga xamante ne boo ko manee te mu nekk fa yow defoo ko kon da ngay gis ne sa ponk islaam sa ponk islaam ba nga xamante ne moo war a wéral sa diini islaam am na lu ci loof ba tax na xadis bañ leen bëgg andil mooy xadisu abdullahi bun umar radiallahu anhu mbokk yi ñu ngi leen di fàttali ne yéen a ngi ànd ak ñun ci waxtaanu fajar bay jaar fii ci Rewmi FM 97.5 xadis bi jëlee nañ ko si abdullahi bun umar radiallahu anhu abdullahi bun umar radiallahu anhuma nee na ko yàlla gërëm mook pappam di umar bun xataab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 wa sawmi ramadan muttafaqun aley mbokk yi yenn jàmmi yàlla nekk ci yenn ak seeni njaboot abdullahi bun umar radiallahu anhu moo ñu ne naka suñu yenentu bi sallallahu alayhi wa moo ñu baaxee nañu islaam ba jullit yi di dund nii de dañ ko tabax ci juróomi ponk ci juróomi pila juróomi piye bu dee islaam baas la juróomi kenu ñoo ko juróomi kenu yooyu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di ñu baaxe ne ñu bu ci jiitu mooy danga nga war a seede ne amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dégg kudut yàlla yàlla dong fi nekk di yàlla te moom la ñu war a jaamu ci dégg bañ koo bokkale kenn waaw te nga seede ne nag muhammad jaamub yàlla la waaye yonentub yàlla la kon muhammad dañ ko war a tabal ñaari garaat bako ko yàlla tabal te mu nangu koo tabal boppam waaw moo tabal boppam garaat yaka yàlla tabal sallallahu alayhi wa waaw moo nangoo rangoo ñaari garaat ya ko yàlla gàll ya ko yàlla rangoo ya ko jox yàqu yàlla ne lii laa bëgg nga ràngoo ko mu ràngoo ko ci jëmmam mu wax ñu ne na ngeen ma ko melale loolu dong doy na boo ko wàññee weddi nga ngëm bi yàqu na boo ko yokkee tamit noonu kon lam ne nañ ko ko gàll lam ne nañ ko ko jàppee nañ ko ko jàppee ñu gëm ne yonentu ba tudd Muhammad abduhu jaamub yàlla la wa rasuluhu waaye yonenteem la tamit ñaareeli ponk bi mooy wa iqaami salaa nga war a taxawal julli ndax julli bokk na ci xeetu jaamu yàlla ya yàlla di contrôler doomu aadama bi keroog bis pénc ñetteelu ponk bi mooy yow jullit bi danga war a génne azak waaw nga war a génnee azak sa azakay alal azaka ci arab mooy luy laabal sa bakkan di laabal sa alal di laabal sa ruux di laabal sa am-am di laabal sa diggante ñangatane ci am-am waaw ak tazkiya nga xamante ne war nga kaa war a mën a def boo ko génnee dafa am lu bari lu taq ci sa ruux azaka moo koy laabal coxor mbalit salte ba ñu naan soxor ak siis ak bëgge ak nay ay salte lañ ay mbalit lañ yoo xamante ne seytaane moo koy ràngoo nit ki bi ruuxam taq ci léegi nag yàlla bëgg pour ruuxu jullit bi muy laab saa su ne ci bëggee ci foqale ci ananiya selfis ne man rek la ko dut man keneen du am waaw na yëpp ñëpp di wax sama am am loolu xëytu jikko yu suufe yooyu la yàlla bëgg mu deñ ci dund jullit bi moo tax mu ne ko nanga nga tibb ci lëma la wërsëgal nga joxe ko ña nga xamante ne yaa ngi dund ak ñoom te nga tane leen te nga féete leen ci kaw ci kotu xéewal lama la jox nang leen ci sëdd nang leen ci bàyyi xel loolu mooy azak ba jullit bi war a génne ñetteel bi walla ñeenteel bi mooy yow jullit bi danga nga war a dem aji màkk dem def benn tukki joo xamante ne da nga war a mën a gis loo xamante ne ay kawtiif lañu ndax yàlla moo ñu ne ci alquran fasiru fil ard na ngeen doxantu ci kaw suuf si fanzuru kayfa kaana aqibatu alladina min qablikum ndax ngeen mën a xool ngeen gis ah mujjanteelu gaa yoo xamante ne ñoo leen fi jiitu woon su ko defee boo jógee ko sa réew tukki dem beneen réew rawatina aji màkk bi nga war a def su ko defee nga dem gis saxaaba fu ñu tëdd yonent bi ni mu nekkee woon makka ah, maqama ibrahim kawtif ja fa nekk ak kaabatul musharrafa ak madinatul munawwara ah, xeetu melokaan yooyu dem xool ko xool kawteefu yàlla ci kaw suuf si loolu yàlla moo ko permettre doomu aadama bi juróomeelu ponku islam bi mooy soomu ramadan nga woor weeru koor weeru wi nga xamante ne fan weeru fan la lañu ñu sopp jullit bi meloo ko mooy mu téye boppam imsaak ci lekk ak naan ak xeetu bànneex pour xelam daw mu xam ne am na ay jëmm yu fi nekk di dund ñoo xamante ne chaque fois wala bés bu nekk lii lañu ñu nekkee di dund su ko defee nga bokk ak ñoom ci dundinu noot bakkan jooju nga xamante ne yàlla moo la ko sant ngir nga jëlee ci ragal yàlla joo xamante ne da nga war a mën a xeex ak sa bakkan ci xeetu bànneexu bakkan yi juróomi lii mooy la la nga xamante ne mooy islaam kon jamono ju ñu toll nii nag dafa fekk ne rek mu tombeek waxtu yi génnee azak jullit bi war a laabal bakkenam ci alal bi nga xamante ne moom la ko buur yàlla subhaanahu wa dénk kon ba léegi ñu fàttali leen ne rek waxtaan bi mooy amalu saalix bi nga xamante ne jullit bi da ko war a rangoo saasu ne su ko defee bokk na ci amalu saalix boobu noonu fadlun nashrul ilm wa daawatun ilayh waaw ngëneel ba nekk ci wesaare xam-xam partage xam-xam distribuer xam-xam ba nit ñi di njëriñu walla nga di woote jëmali ci te yow ci sa jëmm bopp nga nekkee ko yow mi koy taxawee ba tax na xadis bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko baaxee qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam inna mimma yalxiqu almuminu min amalihi wa xasanaatihi baada mawtihi ilman allamahu wa nasharahu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bokk ci yey teeru jullit bi keroog bés pénc bokk na ci lay wax jullit bi joie bienvenue joie bienvenue waaw soxna mari bu dee nasaraan bi noonu la koy waxee ba léegi maa ngi làq sa gannaaw rek nga protéger ma aar ma ci taalu bi nasaraan yi joyeux bokk na ci lay wax jullit bi keroog bés pénc marxaban bikk ahlan wa saxlan bokk na ci keroog bés pénc lay wax jullit bi welcome dalal ak jàmm marxaban bokk na lay wax jullit bi keroog bés pénc mooy lan xam-xam ak jikko ju rafet waaw xam-xam ak jikko ju rafet dinañu teeru jullit bi ñu ne ko dalal ak jàmm gannaaw bu mu faatoo waaye xam-xam bi mooy la mu xam mu di ko jëfe noppi si mu di ko tasaare moo tax mu ne inna mimma yalxiqul mu'min bokk na ci la jullit bi di dékkiwaale te loolu mooy la teeru keroog bés penc min amalihi wa xasanaatihi ci jëfam ak yu baax yam doon jëf gannaaw bu mu faatoo ilman xam-xam joo xamante ne allamahu dakaa xam ba noppi mu xamle ko wa nasharahu mu daldi ko tasaare kon xam-xam ba nga xam nga jëfe ko tasaare ko nit ñi di ko jëfandiku loolu noonu bokk na ci la lay teeru keroog bés pénc ndax day yeewaale ki yow danga koy dekkiwaale bi léegi mu nekk ci amalu saalix jëf ju yiw ji nga xamante ne yow julit bi bu ko fàtte nga di ko ràngoo saasu ne bokk na ci amalu saalix boobu qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa yonent yàlla bi nee na sallallahu alayhi wa sallam laa tajaalu buyutakum maqaabira ngalla waay bu leen bàyyi seeni néeg mu doon bàmmeel fa ngeen di tëdd rek tëdd rek ngeen am ak affaire seen néeg inna cheytaan naka cheytaane de yanfirru min bayt lidi tuqra'u fihi suratul baqara nee na bu leen def seen néeg mu di bàmmeel tëdd rek ngeen am ak néeg affaire bi ngeen am ak seen néeg mooy tidd rek su ko defee néeg bi day mujjee doon bàmmeel yonent bi nee na déedéet bu leen def loolu waaw nee na dee leen fa jàng alquran moo tax mun nañu inna seytaan xam leen ne naka seytaane de yan firu day daw du ñeme minal bayt ci néeg bi nga xamante ne alladi tuqra'u fihi suratul baqara suuratul baqara néeg bañ koy jàng yonent bi nee na seytaane du fa dugg loolu yëpp mu doon xeetu amalu saalix yoo xamante ne yow jullit bi fekk yaa ngi ko làmboo fekk yaa su ko defee dadi loo xamante ne mooy la lay njëriñ fii ci àddina ëllëg bés penc mu doon la nga xamante ne mooy la lay sobe su ko defee nañ leen jël suñu néew yi ñu di ko jàng ni di fa jàng la nga xamante ne mooy alquran ba yàlla wàccal yonent bi sallallahu alayhi wa mbokk yi ñu di leen fàttali ne rekk ba léegi yéen a ngi ànd ak ñun ci waxtaanu fajar bay jaar fii ci réew mi ti réew mi FM 97 point 5 ñu di si ànd ak euh, suñu waxtaanu fajar ak mbokku auditeurs yi ñu ñaan yàlla suñu boroom yàlla bu mu doon suñu mujjantilu arjuma yalla nañ ko fekkee ay arjuma yu bëri amin ya rabbal alamin ñu di leen di fàttali ne rek euh, ñu ngi tolloo ko euh, weeru tamxarit al muharram ñaar fukki fan te mooy tombe gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mille quatre cent quarante six ñoo ngi nekk ci yowmul jumaa bés bi nga xamante ne mooy sangu bés yi e euh, FM di ànd ak yéen ci waxtaanu fajar ñu di ko wéttalanteek mbokku téléspectateurs yi ñu ñaan yàlla suñu borom yàlla ñu yàlla may dégg ak topp amin ya rabbal alamin bésu arjuma wi di bés ni ki tey mu doon sangu bés yi lépp lu ñu ñaan yàlla yal na ko yàlla nangu waxtaan bi jeexut dañoo yegg si fu ñu war a yëkkati jotaay bi ñu war a jébbal béréb bi ñu war a joxe xibaar ci nasaraan lu jub si kàddu gi ñu sante ko yàlla lu ci déng ñoo ngi koy ñaan yàlla ñu yàlla jéggal allahumma aminna fi awtaanina waslih aimatana wulata umurina allahumma ihfaz biladina min alfitan ma dahar min hawma batan amin ya rabbal alamin barakallahu li wa lakum fi alqur'anil azim wa nafa'ani llahu wa iyyakum bima fihi min al ayati wa salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu